assemblée nationale mi nga xam ni démb la jeexal li muy def waxtu wi wu jot ci at mi càmbar xaalis bi nguurug Sénégal ni moom la bëgg a jëfandikoo doxal réew mi euh, ci at bi ñu dëgmal euh, maanaam dajeeti ngeen rek euh, ministre yi indi kayit wax ren ñu ne budget Sénégal guleet mu weesu juróomi junni milliards lu tegal laaj bi kay mooy askan wi nuñ koy yëgee saa yu ministre jaare ngeen taxaw laaj xëccoo. werante euh, laaj bi mooy ba xam lépp le gouvernement bi ñuy wax ci seen kanam euh, dana ko doxal. waaw jërëjëf Babacar xam nga dajeeti ngeen moom loolu moom xam nga xaw ma mooy lan xaw loo ci jublu waaye daje nañ moom naa ne yow mii da fekk assemblée nationale. di daje ñàkk solo gi nit ñi jox. Euh, ñàkk a jox assemble rek. xam nga loolu ñàkk a wekk sax doomu aadama mooy naan ñàkk jox ñàkk jox ñàkk jox solo. li nga xamante ni mooy assemblée nationale te loolu jàpp naa ne yow la ak ñi koy xalaat wala ñi koy xalaat pas yow peut-être mais ñi koy xalaat te xam naa ne loolu ñoo ñuy bariwul euh, li am solo daal mooy assemblée nationale ay penc ndaw réew mi la te ay sénégalaises ak ay sénégalais ñoo boole seeni xalaat ak seeni kart teg ñu fa ne ñun kat nañ leen toogal. Euh, li nga wax nag maa ngi ñëw ci budget bi euh, ministres yi ñëw nañ 33 ministères le Sénégal am euh, ñu ñëw fa daje ak li nga xamante ne nii moom mooy représentation nationale bi te li nga xamante ne nii moom la yoon wax mooy dañu am 60 jours yoo xamante ne nii ci lañu ñu vote li ñuy woowee loi de finance initiale bu ñu ko déposé ci ouverture session bi. dina am dix jours de lecture après ñu commencer def euh, commission euh, financière élargie euh, bu ñu paree ñu def ay plénière ba démb ci la ñu woote budget bi dëgg la ren ñi ngi doog a am budget boo xamante ni toll na ci juróomi junniy milliards muy. 5198 milliards exactement euh, mu doon loo xamante ni diggante 2012 ak léegi budget Sénégal euh, yàlla def na président Macky Sall ak gouvernement am doublé nañ ko loolu nag li muy wane rek mooy performance yoo xamante ne nii liggéey boo xamante ne nii euh, ñi nga xamante ni nii ñoo nekk. ay këyit la rek. waaw xam nga loolu ay këyit la yoo xam ne dafa feeñ sur le terrain parce que tey jii boo demee fépp ci àdduna bi fépp ci Sénégal. da ngay gis ne am na ay performance yoo xamante ne nii gouvernement président de la république am na ko ci ay réalisation ci wàllu école ci wàllu tali ci wàllu euh, dund gi ci wàllu euh, électricité ci wàllu ndox mi fépp loo xamante ne nii mi ngi askan bi ñi ngi ci euh, ñu ngi koy soxla président Macky ak gouvernement ñi ngi ci def ay performance fi euh, démb ministre des finance dégg nga ko mu wax un même production yi nga xamante ni ay production agricole la risicole ak yëpp nga gis ay performance yoo xamante ni am na donc këyit yi ngay wax ni Babacar jàpp naa ne euh, yow ci sa bopp nga xamante nii ci euh, kii fi nga nekk sax ci press bi di nga ciy gis parce que am na ay loo xam ne ci gouvernement bi lay jógee ci nguur gi lay jógee ci budget boobu ñu woote ngay wax ay kayit ak ay chiffres yow mii kilifa nga ci fi nga nekk xam nga ne di nga ko gis donc je pense que loo xamante ne ni la euh, lu am la tradition la liggéey la gouvernement noonu lay doxee te ñun ñëpp xam nañ ne c'est des chiffres yoo xamante ni ay indicateurs yu yu yu ñuy am la te bu ñu waxee budget bi dañu ko doubler diggante 2012 ak léegi c'est parce que am na ay performance yoo xam ne dañ parce que da gis ne le ministre des finances wax na ko dem budget Sénégal dafa am loo xamante ne nii mën nañ ne yooyu moom mooy les priorités d'abord mooy loo mooy les salaires li nga xamante nii mooy dette bi ak loo xamante nii mënul ñàkk par rapport ak li nga mais gis nañ ne non seulement déficit bi diñ koy projeté par rapport ak li nga xamante nii moom moo am même ci pandémie bi ak récession bi nga xamante ni moo am diggante 0,8 pour cent ba 7 pour cent sur le plan mondial aujourd'hui ci état subsaharien ni Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante ni seeni performance sur le plan économique ñoo gën a mag parce que tey ñi ngi projet suñu suñ dem nañ ba un malgré la récession bi 1,5 pour cent de croissance la ñu am nga gis déficit bi dañu ko réduire endettement bi horizon deux mille vingt deux dañuy dem ba soixante quatre virgule cinq pour cent li nga xamante ni moom lañ ko projeté loolu li muy wane rek moom mooy la bon gestion et la bonne tenue de finance finances et le ministre des finances hier ñëw na ci par rapport ak ay performance yoo xamante ni am na ko te man euh, mën naa la wax Babacar ne tey jii boo demee par exemple euh, même yaa ngi fàttaliku. eurobond xam nga du loo xamante ni ñi ngi koy doog a def c' était pratiquement cinquième ou sixième boo xamante ni ñu koy def au Sénégal mais gis nañ ne. même cette année lépp xaalis mais c' parce que euh, euh, Babacar yow taskatu xabaar nga boroom xam-xam nga àdduna bi amul benn dëkk même les pays les plus développés boo xam ne dañuy am seen investissement di ko financer te demuñu lebi amul kenn ku ci amul plus de cent pour cent même ci seen. di euh, du be ci ay endettement donc loolu je pense que loolu du loo xamante ne nii lu ñu <laughs> mën a wax la. ci wax 100 pour cent moom musiba la. non déggoo non kon jàppal ne pays àdduna bi yëpp. ay musiba lañ nekk euh, Chine ci boppam. am na genre bëgg ba léegi waaye mayoo ko ko itam. ah non mayoo ko waaye du ma ko may parce que dama lay wax li nga xamante ne nii lu ñàkk solo li nga doon wax démb yaa ngi gis ne munuñu sax am temps pour wax ci donc solo bi mu am moo bari donc moo tax ma lay expliquer ne la loolu ngay wax daje boobu am ñenn ci Sénégalais ñuy xalaat ne ñàkk solo la baax na ñu expliquer leen pour wax leen ni am na solo te loolu nag jàpp naa ne am na solo parce que waxtaan moom da ngay gis ñoo xamante ni du xam du ñu euh, euh, gëstu ba pare daal di am jugement mais ñooñu waruñu leen xarab mais dañ leen di war di expliquer moo tax Maymo Georges mu laaj ma li nga xamante nii bëgg na ko. Ah, ay sa pareeguma nag quoi mooy li ñàkk solo li nga ciy wax. pareeguma ci cinq mille cinq cinq cinq mille milliards ay projection ci wàllum euh, lu ne euh, ngeen dénk ko li nga xamante ne ñoo di euh, ministres yi natal leen seen i budget ren est-ce que yéen càmbar ngeen la nga leen la nga leen woon nattaloon la li ngeen nattoon pour ministres yooyu daaw. doog leen a jox lii ndax yenn saa yi dañuy gis yenn yi nga xam ne dañ koy mm-hmm. inscrire budget muy ñëwaat chaque fois kenn xamul fan lay dugg wala duggul fenn waaw non absolument so loolu nag moom mooy comme ni ma la waxee ñàkk gëstu bi xam nga boo ñëwee par exemple en commission technique lii tey jii 33 ministères yi nga xamante ni jàll nañ ci amul kenn koo xamante ni su ko suñu ko tey temps bi mayoon mën naa la wax ministère par ministère taux d'exécution bi fan la toll xaalis fan la toll parce que tey jii dañu nekk ci li ñuy woowee budget programme budget programme moom mooy dafa am maintenant benn double approbation en autorisation d' engagement ak li nga xamante ni mooy crédit de paiement autorisation d' engagement mooy par exemple dañ naan programme coordination gestion administrative autorisation d' bi moom mooy fi nga xam ne plafond la lu ñu mënul dépasser ñu ne par exemple deux milliards ñu ne li nga xamante ni mooy crédit paiement un milliard je te donne un exemple léegi un milliard boobu mooy loo xamante ni natt nañ ko tey te loolu engagement la boo xamante ni assemblée nationale jot na ko mais. en cours de gestion il peut y avoir des ba nga xamante ni day am gestion boo xamante ni mën nañ ci dugalaat alal mais mënul dépasser deux milliards donc mu doon double autorisation boo xam ne assemblée nationale moom moo ko joxe maintenant dans au courant de l'année da ngay gis ñu ne président assemblée nationale dafa am ay prérogatives contrôler l'action du gouvernement évaluer les politiques publiques ba pare bu ñu ñëwee en commission des finances yi nga xamante ni ci la ñuy présenter budget bi en 2021 dañuy ñëw ñu def seen bilan ñun au courant de l'année am nañ des prérogatives pour mën a contrôler exactement. action mais yenn mbir yi buy dellusiwaat chaque année est-ce que ça pose pas un problème de gestion. c'est-à-dire yenn mbir nga xamante ne chaque fois dañ ko inscrire ci budget bi duñ ko exécuter. Euh, non deux fois trois fois. non loolu nag moom wax dëgg yàlla man gisuguma loo xam nga boo gisee aussi am na ay astuces xamante ni loo xam ne duñ ko utiliser ci budget nga gis. ñuy def loi de finances rectificative boo gisee ñuy def loi de loolu yoon moo may bu fekkee ne dem nga ba en cours de gestion mu am yoo xamante ni ay ressources additionnelles la wala loo xamante ni ay prévisions yoo xam ne jotoo ko nga def une loi de finance rectificative ren am nañ ci loi de finance rectificative 1 ak loi de finance rectificative de donc loolu moom mooy tax. yow bi nga xamante ni sa gestion am na loo xamante ni war nga ko corriger waat nga def ko je vous donne un exemple bi nga xamante ni pandémie bi ñëw na non seulement am na plan de résilience boo xamante ni président de la république tegoon na ko avec 1000 milliards yoo xam ne ñu pare ci jox ko loolu def nañ ci je pense que un bilan gis nga ko ñu am. ay ponction yoo xamante ni dafa am au niveau des différents ministères lo loolu bi mu amee dañu am une loi de finance rectificative boo xam ne dafa régler yenn affaires yi des fois nga jékki-jékki ba benn moment ci am ay ressources additionnelles yoo xamante ne ni mënoo ko jël rek dugal ko ci budget alors que te defoo li ñuy woowee loi de finances rectificative donc loolu moom mooy tax li ngay wax noonu ñu ñëw ñu ne am na loo xamante ne nii utiliser wuñ ko ñu ne dañuy def loi de finances rectificative réorienter les dépenses li nga xamante ne ni aussi mooy réserve de gestion parce que budget bu ñu nattalee 33 ministères yi ba pare dafa am li ñuy woowee réserve de gestion boo xam ne ministère des finances lay nekk te loolu moom la ñuy moom mooy permetre ministère des finance yi nga xamante ni ay imprévu la wala yu ñu fàtte wala loo xamante nii defaguñ ko woon wala mu ñëw en cours de gestion ñu mën ko ci lijjanti donc ci session budgétaire bi dañuy évaluer ba pare réal euh, doog a. est nag def ngeen loi de règlement xayma la ngeen nattoon daaw. ak euh, euh, la ca am ak ñoom seen yëpp. fi may wax ak yow nii le gouvernement est à jour par rapport aux lois de règlement maintenant loi de règlement bu ñëwee assemblée nationale parce que fi may wax ak yow nii déposé nañ loi de règlement yi nga ni moom moo ñi ngi à jour. ngeen koy dajale sax mais ñu paree non non non non xam nga bi ñu fiy ñëw nag bul fàtte ne Babacar je pense que dama lay fàttali bi ñu fiy ñëw dañu fay fekkoon pratiquement ay euh, lu mat on était en retard de cinq années aujourd'hui on est à jour donc loolu moom. féeti na boor je pense que soo demee assemblée nationale nga laaj dina la wax exactement lan moo fa am beneen bi mooy loi de règlement bu ñëwee cour des comptes après dafa am ay comptes yoo xamante ni ay këyit yu mu yónnee la assemblée nationale pour que ñu mën ko examen donc par rapport loi de règlement moom Babacar na sa xel daal parce qu'on à jour maa ngi lay déglu. Georges est-ce li ëlëmal nit ñi yëpp wala mu mën neen indi jafe-jafe ci wàllum euh, gëstu li gouvernement bi na parce que foo ngeen def benn ministre par euh, euh, ministère hmm. est-ce que coordination boobu ñàkk ci gouvernement bi ndax poste de premier ministre bi fi nekkatul woon euh, munu euh, daan woon leen indil ay jafe-jafe. daaw ñu benn jafe-jafe bul wax ne li lëndëmal ñëpp del wax li lëndëmal ñenn ñi parce que yéen da ngeen ñi di wax rek ne. bu nga waxee mooy en règle générale. waaw man aussi su ma am naa sañ-sañ wax sama xalaat dama ne bu leen di wax ñëpp delloo wax ñenn ñi donc di wax encore une fois de plus poste premier ministre bi mu fi jógee président de la république dafa am réforme boo xamante ni daf ko introduire bi mu introduire moom moo nekk chef du gouvernement les rapports entre l'assemblée nationale ak gouvernement bi mosul soppeeku parce que ñun les question écrites dañ koy bind les questions orales dañ ko doon def li nga xamante ni moom mooy les missions. assemblée bu mënta daanal gouvernement kay amul njëriñ. su waaw loolu premier ministre loolu sa xalaat la waaye aussi sama xalaat mooy dëgg waaw mais ah, assemblée mënut a daaneel gouvernement mais président aussi président aussi amoon na prérogative daaneel assemblée te loolu aussi dañ na cëru assemblée bokk na ci daaneel gouvernement bu jàppee ne gouvernement bi liggéeyut waaye bu amul premier ministre du ko mën waaw déggoo li ma la wax waaye tamit bu amul premier ministre président du mën a daaneel assemblée nationale maanaam du ko mën a dissoudre dindi jaarul woon ak ak dikkaat xalaat la parce que assemblée nationale ak dindi poste premier ministre bi kooku moom kenn rek aujourd'hui moom moo am sañ-sañ bi mooy président de la république wala député yi parce que réforme constitutionnelle président ah, euh, concurrement président de la moom moom moom réew mi. doo déggoo li ma la wax ak député yi sampak simpi simpi xam nga waaye président ci côté boobu. moom mooy non waxuma moom réew mi de ah. mais ci côté samp premier ministre ak simpi kooku Babacar amoo ko. keneen ku dul yow amu ko jën yi tee réew mi banqaas yi tee ci réew mi. waaw daa juddu fekk ko fi. waaw ñu ñëpp dañuy dem bàyyi ko fi. waaye jamono bii ah. moom. Babacar ma wax la dafa juddu fekk ko fi. waaye jamono jii muy dund ci réew mi. moom mooy clé de voûte des institutions ci lim ci mën mënoo ko ci parce que sañ-sañ bi mu am ñoo ko ci ko te senegale yooyu dañu ko jox sañ-sañ bi te incha allah dina ko euh, jëfe ba ba appam jot comme ñeneen yi mu jóge fi dina fi jógee kooku doo ñu ko wax ñun ñi nga xamante ni dañoo ñëwoon nekkoon au dem à l'opposition tey ñu ñëwaat au pouvoir et on sait que suñu app dina jot ñu jóge fi loolu moom Babacar ma lay wax ne xam nañ ko xam bu wér. app Macky Sall 2024 la no waaw déggoo li ma la wax loolu euh, nee na bu wax ci jotee dina ko wax. mais wax ji bu jotee moom da di tere. ñi ñi ànd ak moom ñu ciy wax te yenn saay bu ko ñeneen laajee mu am lu mu ci wax donte sax du naan ba léegi mu ci nii nii non mais da ci yokk dara chaque fois est-ce fii mënul may ñenn ñi liberté woo nga ñoom itam war nañoo am sañ-sañu addu ci lañ leen di laaj c'est pas une question de liberté ou pas Georges nit ñi ñoom ñooy def ay appréciation xam nga nit ku nag kër goo gis mais dafa am njiit tey jii ki nga xamante nii moom mooy kilifa kër gii di RFM am na loo yoo xam ne moom moo ci mën a addu am na yoo xam ne méngale lu méngalaabul am réew dum kër waaw c'est que Babacar boo mënee fexe ba man du ma wax sama xalaat jël exemple RFM ma xam ne mbër ga ma ne seen kër gi di RFM dafa am kilifa dafa am ñoo xam ne tey ji Youssou Ndour ak Birane li ñu mën a wax ci kër gi par rapport ak gestion yow mënoo koo wax bien que fii nga xamante ni fi nga nekk muy rédaction bi yaa fi sa kilifa bopp yaa fi sa liggéey bopp parce que la liberté bi nga am yaa ngi koy def donc ñun aussi chez nous dañoo am kilifa muy président Macky Sall mu nekk suñu njiit mu ne ñu mankat kër gi nii laa bëgg mu doxee mais boo nekkee ci kër am njiit sàkk ko mais da nga koy wóolu mbaa nga ba ko maintenant am nga am nga ca baat mais absolument ah baat bi ma am moom mooy bi nga ma waxee ma ne la président de la république Euh, nit ñi amuñu liberté déedéet mais dafa ne lii su ma sañoon bëgg na et en secrétariat exécutif. mbir mi kay loolu déggoolu ma la ndax boo ci waxee mu dàq la. non déggoolu ma la mais parce que dañoo toog d'accord ci mbir ku ko wàcc mu teg ay daan sa kaw et loolu moom mooy la responsabilité et gis nga. Euh, nit ñi loolu loolu loolu du dara. nekk ci réew nekk kilifa kenn ñëw na leen bu leen yëkkati baat sàngam. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga yow ba ba euh, Babacar yëpp ñu paasewul nga toog. ñu toog ñun suñu mbir suñu kër di wax suñu wax. nga ne loolu du dara xam nga loolu aussi. ma ne loolu du dara. waaw mu toog ay kilifa. Euh, non dama ne sañ-sañ ak yëkkati baat ci ci ci ci démocratie ñu naan la bul wax. Euh, boo ne pipe ñu dàq la xam nga loolu itam ngeen nangu ko itam nag. Euh, xam nga xam nga boo nee pipe ñu dàq la yow yaa ko wax sa commentaire la dama ne dañoo toog suñu kilifa ñu ne ñu nangam bii lii laa bëgg te gis nga ñun ci loolu la ñuy dox gis nga Babacar man munoo ma Euh, euh, lëndëmal wala nga jéem a wër ndomba ba ma am écart de langage par rapport ak ça gis nga président Macky Sall ñun ñoo ko choisir mu nekk suñu leader et on l'assume gis nga yenn complexe yi nit ñi daam naan non nga ñëw journaliste bi ne la non yow sa pré kii daf la ërtal nangam nangam loolu c'est un c'est un complexe que les gens doivent se départir gis nga ñun ñoo nangu président Macky Sall nekk suñu kilifa. te li nga xamante ni jàpp nañ ne moom la bëgg mu baax ci réew mi ci la ñuy dox et on li ñor ci nguur ngeen war ko màcc rek moo tax du ngeen wax. waaw loolu ku ne na cell. loolu de yow sa xalaat la rek xam naa ne suba teel gi ngay toog fii teel a yow moo tax ngay waxee nii. jërëjëf Abdou mbaw jërëjëf Babacar waxtaan wi gàtt na bëggoon nañu ñu ak yow yeneen premier vice président assemblée nationale. merci euh, bëggoon nañu wax ci. Macky Sall mi jël lépp jox ko Idrissa Seck ca kees yéen ñu fa yàgg joxu leen dara euh, waaye. waaw xam nga loolu moom xam nga seen biir la lijjanti loolu bëgg naa la cee wax xam nga bu mu nekkee suñu biir nga war cee maandu waaye li ma la bëgg a xamal rek mooy ñun foofa amul dara loo xamante ni mën nga koo wax pour jaxase suñu xel la ñuy def. en toute responsabilité lañ ko defee waaye comme ni ma la wax moom borom gémmi guy naaj di wax jàmm. jërëjëf euh, euh, Georges itam jërëjëf Faty ñu yendu ak jàmm. d'ici à la fin d'année jërëjëf euh, Babacar Fall Georges Déthié Diop ak <laughs> ak équipe bu euh, équipe bu RFM matin bi yëpp 8 euh, jot na daanaka dañuy dellu siwaat ci plateau bi léegi léegi xibaar yi la ak Cheikh Tidiane Diaw.